Nah. wa mbolo bi alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk julli ñep di nuyu mbokki taalibe yep bu ngeen gisee jotaay bi da ngeen di am xasida moo waral muy bis bo xam Cheikh mamadou muntaha mo ci joxe ndigal ci mbooleem taalibe yëpp rawatina ahlul khasida yi yalla dogal ñi nga xam ñoy jankatu jànkatu yi ñu cërele leen barab bi ñu nek di kayu iid bi di barabu khasida ñu daje fi tey nag ngir waxtaani bis boobu lépp loo xam ne dina ko jagal lépp loo xam ne dina tax ñu am ci gërëmal sëñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi moom lañ fiy nos nii ci njiital suñu kilifa yi toog ci suñu ginnaaw nga xam ne sëñ Ablaye sekk mi ngi nii toog sëñ Abdoulahat Diouf sëñ Akassa Samb ak mbooleem jànkat yi topp seen ginnaaw yëpp ñu ngi fi ba ci sëñ Xaadim Gueye mi nga xam ne moo woote woon bis bi ak ñi topp seen ginnaaw ñëpp ah ci ndigalu sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne ak sëñ Amsatu Mbàkke mu sëñ bu ñoom ñi sëñ bi jox liggéey bi seen loxo ñoom lañ fi teewal ngir fas yéene doxal bis bi ci seen digal ak lépp lu koy rafetal ñu ànd ko daayira yi nag bëri nañ ñi ngi fi fépp fu ëllu da nekk ci Sénégal ñi ngi fi daje ngir dundal bis boobu ci daayira yu fasantikoo loolu mooy li ñu fi indi kon nag dañuy def euh, présentation bi bu ko defee woote kilifa yi woote bis bi woote bi liñ ci jublu mooy bis bi xat na te dem fu ne ñu yëgle ko waaye bu ñu gisee appel bi ci kilifa yi nga xam ne xam nañ leen ci xasida yi fu waay mën a nekk Sénégal wala àdduna na nga xam ne lii mooy sab woote bu bis baa 7 ci suba ba di heures bu ñu jullee tàkkusaan ci lay yem fi la ñuy yendu fi la ñuy ànne fi lañuy def yëpp ñi mën a durus durus ñi mën a yëkkati yëkkati ba ndigalu sëñ bi mat loolu mooy woote bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon dañuy jox kàddu gi sëñ Abdoulahi Seck Euh, mu yëkkati woote ci turu jànkat yi yëpp Serigne Fallou Ndiaye moom moo yoraat kàddoom mu woote ci turam ak turu jànkat yëpp bu noppee ñu jox keneen bisimilah sëñ Ablaye. waaw bu ñu sëñ ak saa sàmb moom mooy jël kàddu Serigne ablaay Seck euh, da ko jox euh, kàddoom ngir mu eggaleel ko ko bu ko defee bu noppee dinañ jox sëñ Abdoulahad Diouf moom it. mu woote ci turu jàngkat yëpp bu noppee kuréel yi nga xam ne ñoo fasantikoo ko ñi ngi fi sëñ Modou Faye ci mu seexul xaddim dina jël kàddu moom it woote ci turu jàngkat yëpp sëñ Abdou wàdd mi nga xam ne moo teewal waa péncum xasaayit ca ndakaaru mi ngi fi sëñ Modou Mbay mi nga xam ne moo teewal ëhlu xasaayit ñi ngi fi sëñ Bayloo mi nga xam ne it euh, Touba xasaayit social mi ngi fi buy jël kàddu wala ku muy jox moom it dina wax ci kàddoom bu ko defee ñu xam ne ñii ñoo fi teew ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ci diggante bi képp koo xam ne ñëw na te war a jël kàddu dinañ ko ko jox loolu mooy jataay bi kon bisimilah sëñ ak saa sàmb ñu jox ko kàddu gi lépp lu ngeen def comme jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc.